waaw sëñ Modou Assou Mbacké mën naa wax analyste wax chroniqueur wala observateur rek moo gën a yaatu ah euh, ci actualité bu senegal euh, sëñ Modou Assou Mbacké euh, tey jii senegal ak fi mu toll débat bi di ñëwaat ci diggante diine ji ak politique bi bi ci mujj nag mooy ba jóge Touba ginnaaw manifestation bu fa Ousmane Sonko doon amal mu jur ay fitna fitna yooyu ay kàddu tegu ci kàddu yooyu bokk na ci kàddu goo xam ne tey jii jëm na ci cérémonie officielle bi mujj mooy euh, ku ci mel ne Abdoulaye Mbaye Peex fi ñu tuddee Sonko rek mu ne bu ko fi kenn tudd bu ko fi kenn tudd kàddu ga rëcc yi am nag lu mu indi ci xel yi balaa ñuy dikk ci yeneen kàddu yi réaction boobu nan ko ko gisee ba ñenn ñi jàpp ni euh, sëñ si ñi leen war di jottali ak ñuy toog seen wet danoo war a jàng ba xam lan mooy seen responsabilité waaye waruñu doon ko xam ne wax waxkat la rek boo xam ne bakkanam lay topp bi wax. waaw man de euh, noonu mu waxee sax man noonu laa xaar mu waxee noonu xalaatu mooy mu waxee woon ne nu dul noonu. moom bu ngeen fàtt ngeen fàttalikoo dafa wax sump ga ca kajoor wala mu ne new ko ca kajoor ak ga ca saalum mm-hmm. mu ne yoo till ga daa yooxu ñu ne ko doo yooxu mu ne till ga ca mu ci saalum ak new ko ca fuuta ak ba ci bawal bu ñu dajale woon mu neex maanaam dana arrangé till gi c'est-à-dire mooy moom su Ablaye Wade àndoon ak Macky Sall ak Ousmane Sonko ñett ñi bu ñu àndoon moom dina gën a yombal ci moom nga xam ne bu wutee amut moom ni muy amee di gën a mën a yomb ci moom mm-hmm. ngir bu yendoo kër Macky Sall Ousmane Sonko du su yendoo kër Ousmane Sonko Macky Sall du mer mhm. su yendoo kër Abdoulaye Wade Ousmane Sonko du mer ngir lépp doon benn te xam ne loolu mënu ne mhm. parce que walaa yasaalu ne muxtalif ne illaa man rahimallah yàlla daf ne maanaam ngeen ngeen de am ngeen séddali ko doon ay kuréel mais loolu kenn mënut a teeba am parce man maa ko bëggee noonu mhm. bu ma muy benn kuréel waaye su boobaa ay idée dootul génn cest à ay idée yi génn nag c'est-à-dire am ñoo xam daa c'est-à-dire mooy ki nga xam ne moom moom moom boppam ci ci moom moom moom boppam ci alalam moom boppam ci liggéey moom boppam ci xam-xamam mhm. lu dundee noonu muy dundee parce moom ci boppam am na ñoo xam ne maanaam dara wutulu kook seen jëm te ñoom du ñu waxee noonu muy waxee mhm. c'est-à-dire ni muy waxee moom lu ne ci boppam la mooy Ablaye Wade mooy tax mu mën a dund Macky Sall mooy tax mu mën a dund te bu ëllëgee su Ousmane Sonko mii doone fi Macky doon ku fa tudd Macky ba nit ki nag bu la sa bopp bu la sa bopp jiitalee ci am réew jiital la ci ay xalaat jiital la ci lépp maanaam chaque jour booy wax rek say wax saa soo ko waxee ba génn ko nit ñi problème la am. Euh, a dañ parce que moom ni waxu boppam lay wax euh, te am ñi jàpp ni moom ci keppaaru sëñ bi lay toog di wax wax jooju est-ce que du responsabilité si sëriñ si ñu xam ñan la ñuy teg seen wet ba bu ñu waxee kenn du leen yedd. waaw sëriñ si loolu man accepté naa sax ñuy def noonu sëriñ Tuubaa daf ne képp kuy ñëw ñëwal am na ñoo xam ne dinaa leen yóbbu ba fa ma jëm a boole leen ak ràbb mu ne am na ci ñoo xam ne dinaa leen sëlbu am na ci ñoo xam ne itam nee na ku ñëw ci man ngir ko am ak saayir si ma jox la yëpp sama baatin del si cest à moom bu jógee ngir loolu sëriñ si kenn du ko tare mais jotaay xam nga jotaay boobu moom li hmm. muy li moom moo laaj loolu yi moo laaj loolu yi boo gisee moom bi mu waxee ñeneen ñi jël di wax moom li mu waxee bokkut ak ni ñooñu waxee te noonu muy waxee tout temps feneen fu mu dem itam noonu la fay waxee loolu muy wax nag nekkul ci moom déedéet nekkul ci moom de boo ku wéetoon ak moom ci mu ndax a jaar a ñàkk nii ngay wax loo gëm la billaahi du ko gëm parce que li tax mooy bu yàggoon Macky Sall mii nu mel noonu la ko daan def ba ma ànd ak mooy bi Abdoulaye Wade ànd ak mu ne man ku ma gis ak ragal ma tey ji gis nañ ko ak te ngeen ragalu ko parce ndax ñi lañ koy ñu ngi xaaraat même bu ëllëgee bu Ousmane Sonko ñëwee wala bu keneen ñëwee mhm. ko présenté noonu a tëddee mhm. c'est-à-dire ko comprendre alxuraan ñëw ko wax mhm. ñëw la ko jox ba mu doy ku ñëw man ngir yàlla ak adduna la ko jox ba mu doy moom ngir adduna waaye noonu loolu mu wax noonu defe nga ne sañu rafaa ñeme na ko wax ñëmu ko

yaa ngi dégg waaye amul kenn koo dégg man buur nay rey di dégg amul kenn koo dégg mu di ko wax parce que ci misaal yàggulee mbaay am manifestation yi fi amoon am na juróom-ñeenti nit ñoo xam ne jëmmi alkaati yi ñoo leen ci buur mais kenn waxu rey leen leen am na 103 personnes yoo xam ne jamono bi ñu tëj leen tëj nañu leen lii lépp muy wax fekkoon na muy am après bu ko waxul day am ginnaaw bu waxee day am léegi wax gi kon après lan la koy dikkal du lu garaaw ñoom c'est-à-dire mooy dikk taxaw jàkkaarloog nit ñi di wax seen waxin yooyu yii du tax nag du yëngal du yëngal dëkk bi du yàq dëkk bi du yàq bokk ci du mooy nit xam nañu lii nii a waxee waaye nu ñu ci la ñuy wax mooy euh, euh, lancé boobu laay nekk muy diabolisation bi nga xamante ne bi gis nañ ko démb rek maa ngi gis ñuy partager vidéo sa Sadaga euh, muy wax ci li nga xamante ni maanaam joxe na itinéraire Ousmane Sonko ne xaw ma lii la waxoon ne dina ñëw fii euh, daal di mitin ci jumaa ji euh, daal di wax sëñ yooyu nga xamante ni bii ñi ngi koy <laughs> ñi ngi koy wax noo jàngatee mbir moom yéen ñi nga xamante ni bii yéen a ngi ca dëkk ba. am ni nga xam ne noonu la yëf yi tëddee bu ngeen jékkee-jékki dégg euh, parce que euh, même sax am na ku ko envoyé waat beneen naan ko bu leen jàllale boobu bii ngeen war a jàllaleeg yooyu pour bañ wax jooju nga xamante wax yu ëpp yooyu nga xamante bi ñu ngi koy wax pour jéem a diaboliser Ousmane Sonko boobu am saa nit booba rek lekk mhm. ak i nelaw da ngay tayal boobu da ngay tayal waaw cest mooy Macky Sall ñi mu àndal waaw day cest à problème bi mu am ak ñoom mooy mu ngi leen di lijjanti seen besoin ba mu normal loolu tax dañoo tayal ci xalaat ah. sa à mooy représentant yi mel noonu réew moo ko réew moo ko am dëkk boo ko am ñu lay waxal ci façon bii suñu waxee pare ñu jàpp ne yow la waxal hmm. yow dañ lay xeebale comme ni ko xeebe xam nga nit lu ñàkk ñàkk xel ak lu nit gàtt xel gàtt xel maanaam boo bëggee jël mbir mu du dëgg nga fexe ba ba def ko dëgg sax war naa mën a dem ba niroog dëgg même donte du dëgg sax est-ce que xam boo bëggee jël ay wax yow man man personnellement fii ma toog Mhm. boo demoon wutal la Ousmane Sonko itinéraire itinéraire jabul su ko ci Touba dinaa ko def ba am xel xaw koo jàpp xam nga ma baax cest à loolu nit war na koo man mhm. léegi nag léegi moo tax mënuñu ko mooy dañoo noppalu noppalu nag boo ko defee da ngay dem ba war a jël di wax ci ku mel ni Ousmane Sonko nga dafa waroon dafa waroon jël jullee ci corniche bi après mu ñëw meeting ci jumaa ji waaye loolu koo ko wax du ko gëm mënoon na ko waxee neneen noo xam ne maanaam dana am ñu ko gëm am ñu ko wetti parce wax lu mu dëggu-dëggu am ñu ko gëm am ñu ko wetti waaye wax bu defee nag borom xel yëpp dañu ko wetti parce nit ñi li ñuy gëm ko wetti mooy li fekk gisuñu ko li fekkewul gisuñu parce que parce que parce que li bil xëy bi mm. xam nga dañoo gëm yomal xiyam ak bis penc mm. xam nga ñu ko wetti li tax weddiwuñu ko ñoom dañu ko gisul ñun li tax ñu gëm ko mooy ñun dañ koo gisul waaye gëm nañ ko dañ koo gëm rek jàpp ko noonu mm-hmm. cest dire loolu lu ko waral mooy nëbb gëm nëbb ñu xamuñ ko cest dire wa wax itam boo ko bëggee wax nga xam ne wax ji soo ko waxee da bëgg nit ñi mm-hmm. fenn fii la bëgg meeting ci jumaa ji loolu mënta ne ba muy wax <laughs> maanaam mënoon naa toog tuuti xalaat sawaral am xelam pour wax pour wax ji nite daal mm-hmm. wax ji nite mooy moom dafa amoon itinéraire c'est minimum ne dinaa dem ba Mbàkke meeting waaye bala maa meeting Mbàkke dinaa jaar Touba dinaa ko yëngal xam nga la wax bu ko waxee woon noonu ñun danañ xam ne waxul dëgg waaye dina tane mhm. xam nga la wax dina waaye ci misaal mu ne yow xam nga ne yow benn destination la amoon moom Ousmane Sonko pour meeting ko mhm. muy Mbàkke ca boulevard ba mhm. fa lañ def seen i sees fa lañ def seen i baas ñun ñëpp ñu maasa xam ko xam nga ñu xam ne bu jógee fee lay jëm préfet bi ne ko fii mënu ko fay defee nit mën na leen jumaa ji la def te jumaa ji ñu waajal ko ngir julli <laughs> loolu parce que parce que nit xel xel ci boppam dafa am nu ko yàlla moo ñanoo xam ne mhm. xel yu manque yeeg alxaqli yu ne yeeg alxaqari yu ne yeeg almutasakki yu ne ñëpp ñenn ñu ne catégorisé na leen de waaye am na loo xam ne xel yëpp ko dépassé mhm. li tax mooy ibrahima bi mu gaa yi demee ne dañuy jaamu ji seen dañuy jafe seen i feet ci àll ba ibrahima alayhi salaatu wasalaam waaw ñu bàyyi ko ne man damaa fi feebar bëgg naa toj xërëm yi xërëm yi bàyyi seen kër wax boobu dafa wut. waaw c'est-à-dire mooy li tax mu defe mooy dafa dafe parce que mën na leen laaj leen mag bi boo demee moo ko teg man in kaanu ndaw ñu ne farajon ilaa anfusihim summa nuku sala faqad xalu faqad xalu dama hawla yantiqun ñu ne ko li mënut a wax mën na leen voilà mun ta wax ngeen di ko jàpp fan la teg c'est-à-dire mooy wax bi li muy dofee dofee daa am lu mu bëggoon ci ginnaaw seen wax la cest mooy jëmmi ko wax boobu muy wax wax la boo xam daa waroon nite c'est le minimum hmm. mooy mu teg ko ci ay xalaat nit ndax xalaati nit moom segg naa saxal lu du hmm. xalaat nit itam yàgg naa dajjul ak dëgg waaw suñ jubaane alxaqu saabitun wal baadulu saayiqun wa amal baadul wa in xalaa fa saayiqun wa saafil sëñ bi Touba ak Ousmane Sonko nan nga gisee Touba ak Ousmane li fa xewoon am na ñu ñaawlu ni ndaje mi daal na mu amoon ak fitna gi waratul amaat mais aussi tey ñu gis ay kàddu yu ñenn yi dendale ay ndigal ne tubaal a jóge nan nga jàngatee loolu. man maa la wax léegi. lu fa xewoon ko amu fa. dama demee mooy. Hmm. Ousmane Sonko dafa sëñ Abdou Lahad indi na fa Abdou Diouf ca pàkkub jumaa ja mu wàcc fa hélicoom nit ñi di ko tàcc man ak samay moroom sëñ Saliou wax na ko ci rajo télé yi ngeen dégg ko Macky Sall mi sëñ Sidi wax na nañ ko nañ ko teeru Ousmane Sonko nag si misaal marqué la ñoom waxuñu ko mais dañ ko teeru rek yem ci cest à ci misaal naka la naka la Touba Macky Sall bu fa naanee am am soow mu dagan bu fa bu fa bu mu arab mais lan moo indi pëccëxoo gi ba ba ba ba mu jural ko une semaine tëj lan moo indi pëccëxoo moom niñ ko politiser ci bi yéen. waaw nañ ko rajo bi mooy yéen rajo bi yéen mhm. ñu ñu tëj ko. te bis set RTS génne lu mel noonu te kenn du ko tëj. cest mooy boo seetaanee France 24 di gis muy génne guerre ci dafa gis muy génn guerre ca Pakistan et cetera. France 24 ban télé wala ban wala ban ban organe de presse moo ko gën organisé ci lu mel noonu cest à mooy kon tëj gi ñu leen tëj dañ ko politiser ni ñu ko li tax ñu demee noonu ñu politiser ko mooy am na droit daal def benn manifestation préfet bi ne mënu leen a def manifestation parce ñaari signature ngeen def li mu waroon mooy mën na leen kaay leen ngeen def seen signature bu ñu ne ko amuñu waxuñu leen nañu dañ koy meeting far force wala am nañu am nañu ko wax sax mais amul ñenn ñoo ca barab dana neex meeting yi ànd ak ba romb nañ romb nañ ba ñëw ba bëgg dugg Mbàkke pour def la ñuy def alkaati leen du ngeen ñu ne leen Mbàkke la def lañ fay defee parce que sëñ bi da koy tere fii ñu ne leen du ngeen ñu ne leen nag luy taw ñu dugg ñun gisuñu ko ñu jàppante ak ñoom alkaati yi seen i grenade lacrymogène la ñu am di leen sànni ñoom itam pexe yi ñu am mooy seet lañ mën a taal ñu taal ko te loolu boo xoolee Touba diggante fi ñu ko ci juuti bi juuti bi lañ njëkk xëcc ci taal ko ci kaw tali bi te bi foofu affaire xale yi dañoo génn dëkk bi dugg Mbàkke bàyyi Touba pour nga xam ne c'est-à-dire même Touba lu fa am cest à mooy gis nga nit ci misaal rek euh, ñu waal nga ci kàddu bi soo jëloon tey benn muus wala benn kalbu nga yeew ko fii ci dem su fi su fi neefara kan moo kan moo jël responsabilité bi. ñoom ña fa ñoom ñoom alkaati ji tëj xale yi ñoom ñoom taal ko ñoo ko indi. parce la xale yi bëggoon mooy dox juróomi kilomètre ba mu des 200 mètres bu ñu leen bàyyi woon danañ génn. Ah mais lii nag lañ nanguwut wax mu leer nañ. waxoon naa nag man ci njëlbeen mën na leen man su sañoon sax. xale yi loolu mën na leen ci bañ fekk. mën nañ bañ a fekk parce gis nga état état Sénégal ne nii. Mhm. benn système lañ mooy ñoom indi nañ lu ñu xam ba ñu dikkee xam nga Sénégal dañoo xamul luy salafisme parce que ñemewuñ ko lañ ko jëkk tàqal ba ab journaliste ab julit toog sa mbokkam sa soxna day muuru loolu war naa nekk question ci Sénégal mu laaj ko ko ne ko soxna sa ñaari soxna dañuy muuru moom Ousmane Sonko ci loolu sax egg na ba ci ñoom influence dugg na ci ba mu dem jëli soxnaam ne leen sama soxnaam gi di ko wan nit ñi loolu ba tey jaroon na ko ci moom jaru ko woon question boobu du luñ ko war a laaj du lu mu war a répondre répondre na ko ba wëlbati ko dem di jël soxna ngir soxnaam ngir bëgg a mbir yooyu hmm. soxnaam daa war a muur bien sûr obligatoire dafa war a muur su ko def loolu ba tey man man ba tey diggam ak yàlla hmm. waaye en génn nañ ci mbër moom yi ñu indi léegi nag mbirum sëriñ si mbirum sëriñ soosu sax euh, dañ cee utiliser ci kiiwu ngañ demba euh, mi nga xamante ni waaw ngañ ba wax ji nga xamante ni moom la wax ñu jël ko daal ne jaamu yàlla bàyyi di jaamu nit wax jooju yow noo déggee wax jooju. wax jooju ma ko déggee daal. Mhm. mooy jëmi société bu mu mën a doon wala communauté bu mu mën a doon wala mhm. mouvement bu mu mën a doon bu ñu dikkee. waaw dañuy indaale ay vocabulaire ay mufradaat dañ ko mhm. indiwaale. l'islam xam nga yan yan mufradaat indi. dafa indi al wudu maam jàpp. daw la ko arab daan wax maam layar la ko tuddee moom moom bi mu dikkee da ko tuddee raxasoog naa ki naanga l'islam bi mu dikkee dañuy def ashakaat moom mu tuddee ko jël sa ma nga lii seen vocabulaire la nga dem ci ñuy wax ibadu rahman da ngay dégg nga dem ci ñuy wax salafiste yi ñuy wax daawa loolu ba tey seen vocabulaire bu ñu àndaale mm-hmm. cest à nit ki boo ko indee mm-hmm. xam nga ma la te boo te sarxu bi ci war defuloo ko man nga man nga indil sa sa maanaam ñoo xam ne say noonu lañ wala ñoo xam dañoo bëggoon appee ci say kàddu ngir jabulisi la ñu jaar te noonu la demee mm-hmm. waaye gis nga alquran dafa ne wa daa yéen ilallaahi bi ismihi di wooteel yàlla teg ko ci ndigalam waaw

différence bi ñu am ak ñoom mooy ay xawaaxit xawaaxit dinañ am ak ñoom problème xawaaxit maanaam ci jëmmi ci jëmmi buut bi lañ am ñu problème waaye waaye jëmmi banqaas moom amuñu ci ñoom benn problème dëppoo nañu ak ñoom ci julli ñeent ñeenti rakkaa la dëppoo ñun ci timis ñeenti rakkaa fajar ñaar rakkaa naa nga wax loolu dëppoo nañ ci salafis na ci ibaadu yi dëppoo na ñoom ci sàkka naa nga wax gis nga jaamu nit fii ci suñu réew mii fii ci suñu réew mii diw bis daanaka amu fi xam nga la fi am kuy jaamu ay soxlaam kuy jaamu ay soxlaam mooy préfet bee ca Mbàkke xam nga ne jaamu lam def bëgg na ci lu neex Macky Sall waaye xam nga ne jaamuwut Macky Sall mooy ñaar ñaar yi mu ne yii moo tax mun ma ko jaamul Macky xam nga lu muy jaam postam bi mu toog ak ak lam ca mën a amee comme ay privilèges mm. et cetera et loolu la nit nit du jaamu nit loolu amul fenn euh, Moustapha selon yow lan moo indi euh, dérive yi nga xamante ne léegi nemmeeku nañ ko ci langue politique gi muy loo xamante ne dañuy jàll ci sa waaso jàll ci sa waajur jàll ba nga xamante ne dañuy dem ci tarix yeeg yooyu Sénégal yàgg nañ fi politique mais li ñu fi gis nii mosuñu ko fi gis jàll ci ay sëriñ tey épargné wuñ leen tey jii bu nu fekkee ba yóbbu noonu xotti seen war warma tey fan la ñuy jublu lan moo indi loolu. loolu loolu lépp état la état moo jël responsabilité bépp ku dul état amuloo ci parce que état waaw ku dul état amuloo ci benn responsabilité li tax mooy état moom lañ sant mbir yi mu koy teg yoon moom lañ sant muy yar nit ñi moom lañ sant muy muy jàngal nit ñi moom lañ sant muy muy sàmm nit ñi moom lañ sàmm fu lu baax ne mu jëlee ko fa def baax kon fu ngeen fekk lu noonu rek bu ngeen bëggee ne maanaam diw mii la diw mii nangam ak nangam lépp état la parce que ak avènement maa ngi ñëw xam nga Macky Sall dane day bañ ko saaga moom bañul saaga ku ko saaga ku saaga lay bañ ku ko nit saaga na fii ay nit ci biir réew mu yóbbu ko assemblée kon kooku ba ñu ay saaga ku koy saaga lay bañ xam nga dafa ñaari dafa niroo ay saaga ku leen saaga la bañ mhm. parce que am na ay responsabilité yu bari doon def waaye fastaqafa qawmuhu fa ata'uhu innahum kaanu xawman faasixiin dafa imposé nit ñi dictateur ñu accepté dafa imposé nit ñi dictateur ñu accepté daal ne bu fekkoon na ñoom bi mu dictateur jàll parce ba ci tubaab yi Macron mii nii su ko wóoroon ni ba imposé dictateur mu jàll ngoonu tey la koy tàmbali waaye xam na ne bu ko jéemee képp 63 ngeen di continuer di liggéey ñu ne ko du fi amee kooku xam nga ne xalaatul la ca des parce li tax mooy kaay leen ngeen te moo ne kooku day boo ko indi woon suñ suñu réew mi aspect aspect positif la fi doon ko moo ko fi doon mooy ñun suñu retraité yi suñu retraité suñu retraité yi ñu ngi seet nu ñu leen yokkalee ñoom nu ñu ne dañ leen di yokkal ñu liggéey dam jara leen di manifesté wu pour nga xam ne jëm ñi aw xeet bari luy am ci seen biir loo xam ne président ba bu ci amee dañ ko ci ëppale ba mu dem ci cent parce que ñun ñoo koy nangu ñaare bu dee kilifa yi diine yi ngay wax ne maanaam dañ leen épargné woon léegi épargné leen di am ak ñoom kenn daawu leen ci boole kenn da déedéet kenn daawu leen ci boole voilà waaye nag léegi nag da ngay jàngat hmm. euh, euh, avant après ak fi ñu toll nii ah, jamono dox waaw da xool jamono hmm. gis nga kilifa diine ñu njëkk ñi gënuñu leen de hmm. waaye ñu njëkk ña ñañ tombee loon daa bokkut ak ñii ñu tombee parce que ñii ñu tombeel nii ak ñee ñee tombeeloon ñee ne c'est-à-dire mooy at mépp ñoom juróom benn weer lañ ci daan liggéey wala juróom weer bu ñu amee bu dugub ji baree rek gerte gi baree rek ñoom pour pour ñoom lépp baax na xam nga ma la wax baax leen c'est-à-dire niñ leen yaree woon itam mooy amu leen xalaat ci mbir niñ leen tëralee rek noonu ngeen ko gisee mooy yu ko sëñ Tuubaa waxee par rapport ak ñii nag ñoom dañuy fréquenté ak sëriñ si dañuy ànd ak sëriñ si sëriñ si dañuy tabax ay kër ñu tabax comme ñoom sëriñ si dañuy ñu tukki comme ñoom sëriñ si jënd oto ñu jënd oto comme ñoom sëriñ di wax seen xalaat ñu wax seen xalaat mhm. yaa ngi dégg léegi nag wax sa xalaat saa su jógee nag mhm. dañuy wax ne bu wax xam-xam jotee ku jàng ca bokk waaye wax sa xalaat kenn ku am xel man damaa bëgg nga ñëw ci ah, point bi ah, parce que man euh, li nga xamante ne bi moom la gis nga kii mi ngi bëgg a jaxase sax bi mu ne ma une minute kii baa bëgg a naaw waaw président Macky Sall euh, mi nga xam ni barki Dembo Ndiaye ñi ngi doon wax ne sëriñ si simple citoyen lañ et cetera euh, ba nangu woon fi oto xalif général de Baye Fall tey mu daal di ñëw bëgg ne mel ni ku solal mbubb ñi nga xam ne mooy tarixa yi naan bi mu demee kii dégg nga ko la mu wax nee na yenn yi kenn du ko fi nangu mel ni dafa fàtte ni am na loo xamante ni bii moo ko waxoon bi ngeen déggee wax yu mel noonu nu ngeen koy jàngatee. ci jamono loolu loolu moo waxi politicien la. Hmm. gis nga politicien yi ñu daanaka day bu demoon ca tefes ga xam nga tefes gi jaay na seen géej gi ba mu jaax. waaw ay feneen bu demee bay dajeeg mari yi xam nga lu mel di wax. dinaa indil ay bateau dinaa leen jox ay gaal bu demee ci ñi nga xam dañuy jaay gerte dinaa fexe jox ay semence yu baax su demee ci ñi nga xam ne ci misaal dañuy def menuiserie dinaa dinaa fexe ba bant yi dina dugg bu demee ci ñi nga xam ne dañoo yor ay entreprise jigéen loolu la leen di wax bu demee ci sëriñ comme comme ñoom c'est-à-dire mooy ci wet gi mooy aj leen a kooku wa leen ci noonu leen mën a naxe ñoom tam loolu seen calmant mu jox leen kenn ku nekk sa calmant rek kenn ku nekk nga wax ne état bi si am la gisoo ne ku nekk la si am wàll parce foog ku nekk tamit dox sa sa sa côté gën a wut jàmm euh, jéem a jéem a defar pour affaire mën a dox. waaw xam nga loolu bu ñu ko tegee ci état kese tamit. état kese la dañuy naax rek. voilà parce que nit ñi. état kese la ñi foog foog nit ñi duñ ci dara foog ñu yaru ci dara. nit ñi état bi dañ ko jox jumtuwaay yu tax mu mën a yare. Mhm. yow sa doom da koy xaar mu yar boppam wala da nga koy yar yow. la violence légitime. ah da nga wala da nga koy yar yow yaa ko yar. yonent bi mu fi nekkee yàlla da ko jox ñeenti responsabilité. wala yat def ko ne maanaam ñi fi ne yow yaay wax yaay def yaay dindi gis nga lu mu def moom yonent bi baax na nit ñëpp def ko lu mu bàyyee baax na ñëpp bàyyi ko lu mu wax ñépp dañ ko war a def même yow yow Alaaji Sanjoo boo toogoon ci kanamam naan sàngara ba ba màndi mu lay xool waxut dagan na fi ne xam nga ne xam nga ne am na loolu dagan na parce que da koo gis war koo mën a interacté dagan na mm. état ci misaal lu nit def mm-hmm. état lu nit def c'est-à-dire lu ñu defoon moom moo yan responsable parce que dañ koo jox jumtuwaay yu tax mën ko saafara waaye ñoom ñi ngeen dañoo yar it ñoom ñoom ñi ngeen dañoo yar dañoo am problème ñoom dañoo am problème mooy ñoom li ñuy def ñi ngeen di jël ñu sax ñu yërwul duñ ko def ñi ngeen ñi maanaam ñi ñaan yëruwuñ la ñuy def ñoom waa mooy xool leen yow c'est-à-dire c'est-à-dire ku ñu defar ba mu normal mel na war a mel war a mën a jiital nit di leen defar ndax dana toog ay nit ñu feebar nga wax ñu war leen a faj ngay sàcc seen alal waaw waaw ko waaw kooku ngeen dox mu yar nit ñi. dana dana jafe moom ngir. cest mooy Sénégal man damaa bokkut ci ñu gëm na ay état lañ yor. Mm. dama ci bokkut man maanaam euh, lu ñu organisé la pour pour not nit ñi rek di lakk sa. <laughs> Eh, Omar ñu tëjee foofu. wax na waxi ah, Pape Amel Khalifa Niass nee na ñun ay état. Ah, waaw loolu la may fàttali. kon di la gërëm baax di la sant Pastef nga bokk. waaw ah, na dama <laughs> <laughs> man sama bopp laa ne. ah sa bopp nga bokk. Ah, d'accord leer na ayca waaw léegi li li ah, may man li may tàggatoo rek mooy. ñun ñun waa Touba. dafa am idéologie bu ñu Serigne Touba joxoon. ci ñii di politique man ci mel ne Ousmane Sonko laa ko gis mu yor ko. idéologie moom sa bopp moom sa alal. loo wax muy la nga nar. doo hypocrisie ci dara mbir yi doo ci xàmmee ku lay mere ak kuy bëcc yow wala yaxaafoon law ma talaa im Serigne Touba dane man awuma soxla ci ku may bég ci man ak ku may mere fala aqaafu wala arjo si fala aqaafu wala arjo si waa malikee li annahu jàll yoo xam ne ne woon diine man ragaluma kenn dunduma kenn yàlla laa dund moom laa ragal li may li muy def moom ma koy jox li may li may ñàkk moom ma koy xame sukkandiku ci mu wax ne mbiri boppam mënu ci dara c'est-à-dire mooy moom woon na lañ ci transparence Sëñ Tuubaa lii la ñu wax bañ Sëñ Tuubaa lim ñu lim ñu lim ñu digaloon sëñ bi wax nga bëgg Sëñ Tuubaa lim ñu digaloon mooy jaamu yàlla te moom Ousmane Sow dañ gis ci jaamu yàlla liggéey te ko sellal fukki at ak juróom lance na leen defi ne leen ku ci ku ma ci lekk xaalisam waxal te ba tey ñoom waxuñu ko xëy naan ndaw si te ndaw si du ay wax lay waxe mooy lañ ko dénkoon dañ bokk ko ndaw si ñun seq bokk ku ñu ko ak moom asalaamaaleykum wa rahmatulah le le mara wala jeudi le marabu le marabu intellectuel ah ñu koy jaajëfal bu baax a baax di ko gërëm tey jii rek mun doon jàngatal diggante diine jéeg politique bi rawatina diwaanu tubaa ñu am mbégte nag ci déplacement bi parce que tubaa nga jóge Euh, yoon wi yombul mais ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal yoonu jàmm mais aussi di sàkk nga ñaanoon ci place bi aussi suñu borom def xewal xéwal def barke ñi lay ñaanal bu baax a baax Mbàkke jërëjëf